toq ndox amagu fi waaye doy na waar dafa mel ni technicien yi fi nga xam moo di kër Momar Sarr ñoo ngi ci yëngatu ngir ndox mi daal di dellu si kii di Mamadou jaar secrétaire général bu SDE jiite leen nee na lu wér te wóor mooy amul date boo xam ni mën na ko joxe waaye na ñëpp tey ci xam ni liggéey bi ci teg ak tey lañ koy teg daal di koy taaxee lu ba lépp daal di sotti ñu ngi teg li nga xam moo di tuyau yi mu mel ni liggéey bi nag SDE ñun ko dënk ñooñu ñëpp boo xoolee doomu réew mi lañu technicien wu Sénégal ñoo koy liggéey Diop néna na accident bi mënoon na gën a bu fekkonté ni ah juguñ ci won out ay solution waye buñ taxirloo tuuti ndox mi dina daal di dellu ñaari ay yu ngi ndox dàqul fi nga xam moo di ndakaaru SDE jàll na ci li ñu naan plan B ñoom nag ñu ngi koy liggéey liggéey boo xam ni tey ji lañ koy daal di tàmbali ngir nag ndox mi mën a dellu si waaye ki nga xam moo di ab Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine yëkkati ay kaddu mu ni mbir mu mel ni su fekkee ne dal na Sénégalais yi lenn rek moo leen ko yóbbee mooy seen négligence maanaam balaxal madd ak caaxaan joo xam ne dañuy toog ba mbir mi ni këtt ni jot ñu dooru jug ni dañ koy jéem a saafara président Macky Sall mu mel ne mer na dee nee amul ci seen biir nee nañu nag képp koo xam ne gis nañ la ngay jaay camion seetal na ndox billaay buñ la ne nikk ba ni la yót di nga daj lu mburu dalu cib taal kan moo jiite woon SDE dañuy xool suñu jëwriñ ba woon la tribune yéen kaay daal di fësal Abdoulaye Makhtar Diop grand serigne de Dakar nee SDE deful dara bu mu gëstoo bi ci biir erreur bi mbir mi njuumte yépp mu ngi jóge ci nga xam moo di SONES moom bi mu nekk directeur SONES nee na nanguwul woon politique hydraulique bi ñu doon def bëggoon privatisé li nga xam moo di SONES loolu mus ci ànd waaye nee jamono yi lépp lu jëm ci réparer panne bi loolu SONES moo ko waroon def SDE société la boo xam ne dañ ko dénk mu distribuer maanaam li nga xam moo di ndox mi waaye li ci ëpp ci mbaggu ki nga xam moo di SONES la tegu ca képp ku ni SONES état bu Sénégal ngay wax waaye nee na SONES e ko feegawul ndaxte ñi nga xam ñooy waa SDE bu bi nga xam moo di facture bi SONES lañ koy yónnee ca bu boobaa plainte bi dina dal ci kaw Sénégal xaalis bu bëri moo ko ciy nar a fekk ñu desandi ak tribune yene kaay mu fësal ki nga xamante ni moo di Malick Noël Seck yëkkati ay kaddu moom nag nee ca dëgg-dëgg Sénégal dafa mel ci benn bomb la ñu toog boo xam ni jiixi jaaxa bu ndaw bu buñ ko defee mu daal di kalaate nee na fa réew mi jëm doy na waar ca moom boo leen gisee muy jub di yuuxu di wax lim ci jublu mooy Sénégal mën a neex mën a jëm kanam suñu doom yi ñuy bàyyi réew mu ëllëg bu ñu dellusee mën a dund dund boo xam ni ca dëgg-dëgg dina mucc ayib loolu nag Malick Noël sekk moo ko yëkkati ci la tribune mu mel ni nag képp koo xam ni ca dëgg-dëgg sa gémmiñ day nàcc buñ nga ba ci biir doo wax jàmm parler de vacances kan la ñu fësal ki nga xam moo di Mamadou Lamine Diallo bu tekki moom yëkkati na ay kàddu ci date yi nga xam day am lu mu koy fàttali nee na 2006 nekk na nag at moo xam ni mi ngi nekkoon Mali doon liggéey ci wetu président bi nga xam ne Alpha Omar Konaré nee na am na malien boo xam ne daf ko foroon ci mbedd mi mu doon waaj a wasin keroog ci otoom la ko dugal daal di koy yóbbu ngir ndaw si nag daal di mën a mucc daal di moom boppam kii di Mamadou Lamine Diallo nee na 1998 am na mbir mu doy waar lu ko naroon a dal dafa demoon aji fi fi nga xam moo di Makka naroon na bokk ci ñi nga xam ni ñàkk nañu seen bakkan bi nga xam ni 300 malaisiens dee nañu fi nga xam moo di Makka ca buuxante ba ca moom ca buuxante boobu ca la bokkoon mu mel ni Mamadou Lamine Loum nee na lu ci bëri nag du ko fàtte ay date yoo xam daf ñu koy fàttali ci l'observateur boo leen ko gëstoo xam ni mu ko waxee. ki nga xam ni du waxantu ci boo xee ren balaa waxati déwén kooku mooy la xalif général kullu murit ki nga xam moo di Serigne Sidi Makhtar Mbacké l'observateur fësal lan la def dafa wàcc si fi nga xam di Ndakaaru ngir ñaanal ñi nga xam ñoo di ujaaj yi waaye sëriñ bi la mu def ca dëgg-dëgg fële tërëbës ki nga xam moo di Karim Meïssa Wade fu mu tëdd mun nay xaqataay daa di ree daa di fëgg dënnam daa di wax alhamdulilah ndaxte kii di xalif général bi dafa ko yónnee ay bernde lu mel ni miche yi ñu ni déet na waaye mu teg ci ay ganaar yoo xam dañ ko njoñ ñu ni déet na waaye mu boole ci ay fruits mango banaana kokko ak li nga xam moo di pomme ñu ni déet waaye sëriñ bi yónni ki nga xam moo di chauffeur mu yóbbal ko ko mu di ay mbernde yoo xam buñ ko gëstoo ba ci biir loolu mooy sëriñ bi mi ngi ci ginnaawam waaye nag ki di Karim moy sa wad jamono yi xalam war nay tambale dab ginnaw ki nga xam modi Antoine diom teggi ko serigne bi dal di koy ay merde kon nak mbok xarit ci ni setan wax waxat du bari wax leral ay wax la li leen beugal leral ligi nak moy sen xibaaru xew xew jamono. mu melni ni ndox bi ci ndakaaru ci deug deug ëlëm na wa rew mi le populaire dik ci mbir mo xamni kep ku ko jangat la nga cey tek modi waro gay loxo faw mu dara ci gémmiñ kii jigéen la boo xamante ni dafa yanu woon paanu ndox ñu ni fan ñu ni ca bur gi ba muy jéggi tali bi ndekkate yow day daw ba si yàgg oto fekk ko fa daal di koy fël mu daal di ñàkk ba kanam gën metti mooy ndaw si dafa ëmboon wan noonu lor mu nekk jigéen joo xam ne jigéenu wérul la oto bi noonu la jaare ci kawam ba kanam daal di fay des mu nekk mbir moo xam ni képp ku ko jàngat ci lu populaire li nga ciy teg rek moo di la hawla wala quwwata illa billahi al aliyyil azim ñu naan la tribune amat na nit koo xam ni ñàkkati na bakkanam ñu mbir mi fan la xewee fi nga xam moo di Bargny moom dafa nekk ndaw loo xam ne ndeysaan dafa ñëwoon vacances de dafa ñëwoon vacances àndoon ak ki nga xam moo di nijaayam moom lan la doon def day da doon fi nga xam moo di lac artificiel bi nekk ci wetu Sococim di fa wuti ndox moo xam ne mun na ko yóbbu seen kër ñu ci togg ci loolu nekk nekk mbir moo xam dafa daal di doy waar dafa mel ni moom tamit dafa dem ba ca biir lac ba daal di suux dugg ca biir ndox ma daal di lab bakkanam daal di fay des mu nekkaat beneen problem bo xamni ndox mi ko indi ci kep ku ko jagat li nga ci tek modi la hawla wala quwwata illa billahi al azim laata ñuy tàggatoo mbir mu tis tiis yene kay bi nan la tribune moo na ko daal di netali mais dañi descendi ak yene kay bi di la tribune lañ tay tek modi tës lan la xame mbir mi daara la xewee naka la demee accident boo xamante ni ñaari nit yoo xam ne ay saret lañ yore woon am oto boo xam ni 4 x la moo daw jaar seen kaw daal di leen di fël bi mu leen fëlee naka la demee ki nga xam moo di benn charretier bi ñàkk bakkanam ñaari fas yi fa la ñu tëdd di kadd kaddi ba jaaree fa daal di sedd guy moom mi doon dawal 4 bi jël ci ay gaañu gaañu ak keneen ki xam mooy loon saret bi dañ leen jël yóbbu leen fi nga xam moo di loppitaan ba tax na jamono yi fa ñu tëdd seen bakkan mi ngi nekk ci xottu gerte mu nekk ci mbir moo xam ne ci deug deug kep ko ko jangat len cay teg rek moo kaw def kon nak mbok ak xarit ci ni setan dafa melni das du yàq paaka duñ def lu dul dik ak yeen ci sen xibaaru tagat yaram bu fekkonté ni ñaar yalla nu nekk ci kaw asaman dafa melni teul teul la asaman ak suuf di dekké waye ñaari président yo xam dañ leen falando dafa melni ci tibantay tank ak jëlante jaasi la mujjee foofu mooy de Dakar équipe de football bi

ak maître El Hadj Diouf le populaire moo dikk ci coow li nga xam dafa nekk ci diggante Cheikh Seck ak ki nga xamoo di maître El Hadj Diouf coow loolu dafa daal di cëppeelu ba ci yéene kaay bii tribune yéene kaay fësal ñoom ñaar ci tribune sport kenn ku ci nekk nee nga yow yaay jiite jaraaf de Dakar ginnaaw bi nga xam seen président bi dem na waaye yéene bi nga xam mooy la tribune yéene dafa dikk ci li nga xam moo xewoon Maputo mu mel ni aaya bi wàcc na suñu gaynde yu jigéen ñi ci wàllu afro basket éliminé na leen fi nga xam moo di demi final ñu toog ci kanamu Angola waaye ñoom fayu nañ ci kaw ki nga xam moo di Cameroun mi nga xam ni ca dëgg-dëgg bi nu ko jàppee duma nañ ko duma yoo xam ni leer na naan ba tax ñu yéeg ci nga xam moo di podium bi am li nga xam mooy médaille de bronze wuré wa dem na këng waxi mag dem na ndañ tàlli mu mel ne laata ñuy tàggoo dañuy tàbb ci kaay bii nga xam mooy sunu làmb bu nu ubbee géew bi dañuy jàkkaarloo ak ki nga xam mooy doomu nangaan borom face to face kooku mooy Mouhamed Ndaw Tyson Mohamed Ndao Tyson ni nga ko doon néggandiku def na ay jamono kenn déggul ko mu yëkkati ay kàddu daal di wax mi fi nga xamoo di Miami États-Unis ci première partie waxtaan ak suñu làmb daal ñi ca dëgg-dëgg man naa daan kuddul Gris Bordeaux Gris Bordeaux nag bu fekkee ñu bëri moom lañ def favori nee na bu leen neexee nañ ko def favori waaye li wér te wóor mooy man bu ma dellusee ñëpp nañ xam ne Tyson dellusi na ñu ne ko nag 2004 ba léegi amoon ndam boo daanoo doo bàyyi mu ne sportif la suma carrière bis bu ma koy dakkal loolu may waxtaan ak taf la waaye ki nga xam moo di Mohamed Ndao Tyson nee na du fi tabaskee de waaye biceps yi nga xam mi ngi koy wane ci yéene bi képp kuy mbokk Gris Bordeaux jamono yi boo tëddee benn bët ngay nelaw parce que combat la boo xam ni ay ngaam yu tasaaroo xaj na ci kon nag mbokk ak xarit yu ñuy seetaan revue de presse quotidienne bi agsi nañ fi ñuy tàgg toog yéen waaye laata may dem mbir mu doy waar. jamono yii xam ngeen ni ah ca dëgg-dëgg nekk na jamono joo xamante ni day ah kii nga xam di jigéen ñi ak góor ñi seen diggante dafa mel ni léegi-léegi am courant bu fa jàll ba jur ay mbir yoo xam ne dafay daal di doy waat waaye fii dañuy jàpp ci seen loxo dem ba fi nga xam moo di Kédougou ñuy wax ci mbirum góor ak jigéen wala ci wàllu li nga xam di prostitution le plus vieux métier du monde ndekete yow foofu nga xam moo di Kédougou am na mbir moo xam ne dafa xew benn nigérienne moo nekk proxénète maanaam jigéen boo xam ni day jël yeneen xale yu jigéen di leen jël di leen jaay ay yeneen i góor lan moo tax ñu koy def ndekete yow fi nga xam moo di Kédougou fa la mine bi nga xam mooy Sabodala ne mu mel ni ouvrier fay ne day yittewoo ay jigéen nigérienne boobu nag ci business boobu lay daal di dox ndekete jigéen yi mu leen di jox dafa nekk ay jigéen yoo xam dafa leen di jële fi nga xam moo di Mali dugal leen fi nga xam moo di Sénégal jaay leen ñi nga xam ñoom ñi nga xam ni góor ñi nga xam dañ fa ne kii nag nigérien bi mi ngi jëndee benn malien ñaata ndekete yoo un million la ko jëndee fi nga xam moo di Mali ginnaaw ba mu ko jëlee ci beneen dëkk dugal ko fi nga xam moo di Sénégal waaye takk der yi politique boobu dafa mel ni toj na ba teg nañ leen loxo nigérien boobu ak ñi nga xam ñooy jigéen ñooy doon jaay seen bopp jamono yi nga fi nga xam ni fa la mbaxana doonee benn mu nekk métier boo xam ni doy na waar parce que ndaw si jot na ko fay huit cent mille ca ngi ko war a jox lu tolloog un million boo xam ne am intérêt un million cinq cent mille la ko war a fay ginnaaw bi ñu ko jëndee di ko jaayaat góor ñi ndeketewoo mbir moom mu ngi ci yéene kay biiru naan l'observateur soo leen ko gëstoo di ngeen ci am gis-gis bu gën a leer kon nak mbokk xarit ci ni seetaan revue de presse quotidienne bi agsi nan fi nga xamanteni fofu lay tag tok yeen ma len di wax ni nak lat ni dem damay jaajëfal ñi nga xam ñom la andalon ci xarala bi di ci jiital ki nga xam mo nekkon ci bëtu wax fànge bi kok moy Chris chef Nani Brown le bonhomme aux cheveux frisés mom nak mo andon ak man ki ma gungi tamit ci li nga xam moo di montage bi kok moo di Prince Moses ñuy jaajëfal ñep ñu ni setan ci aduna bi yeb di ci jiital suma xarit suma doomu ndey promoteur bu mag bi nek fi nga xam moo di Londres fi nga xam moo di Angleterre may jaajëfal suma turandoo Bara Fall mi nekk Albany fi nga xam moo di États-Unis à New York nee naa ko jàpp loxo ñu ngi leen di nuyu ñëpp di leen ñaanal mucc ak xéewal di ànd ak jàmm ju sax dàkk yokk ndam ak barke revue de presse bi suba lay dellu si waat incha allah wasalaam.